Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal du julli waxtu yi juróom Cheikh Mbacke bu soo ma tafay waxtu borom Touba yaa mën a jiite gaayoo bokkul fu ñu xaw yaa raw ñi wiy ak alhamdulilah bi ñu ko waxee li Cheikh Mame Fall waxoon noonu la ñëpp ay murit lañu ndax sa ko la sa mooy ومنكم من يريد الآخرة كنتم لا ردت ونسأل أمك نبقى أمك وإنك سنبرت أثرا وفوق لستا من الجوية وإن من كان يريد المعادلة عجلنا له فيها ventilo bi. maanaam saa wala nga débrancher ventilo bi nga brancher la ko. dama. kéeméer la waaw. waaw. waaw. waaw. وسائل سعيها ومضت أولئك كانوا سعيهم مذكورا وكفر إرادة سبك سبك يعني في الدنيا الآخرة تجف جف الآخرة لأن دي سين جف جف جلي سنتنا لأن وعينك تتحل الخير ñee bëgg mu ëpp mel ni gëm nag kenn ko faral يا بتاكل نحن نتمسخ يبص دلوقتي القرآن هو ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان خلونا يا خلونا يا القرآن ولكن جعلنا نورا ونهدي به من نشاء من عبادنا إذا كفر يتمسخ يعني خلونا يا رجل قلت خلونا يا رجل يا رجل الاتفاق كل هذا يا يعنيك tingene ne abok tabax dafa des mu waaye ñu fexee suuxat ngëm boobu ci xol di ko suuxat di ñaan da ci jëkk ci suuxat bi mooy di ko ñaan suñu ndax yàlla wax xaar naa dégg ñaan ci wax yàlla may mu dara lépp daf koy jaay waaye man waxuma man dinaa xam yàlla lépp may jaay dara هو حامل يعني تجني الأدوات فأنا كنت تأدي وصدرها وأنا يعني ما يمتلك اللي بحث بداية أنا يعني الداية بتاعي اللي بحث من يكون الذي اسمه يقرأ بالغلوم وصدر الماء اللي بيصدر تسوق كده بيجي تكفي ماء قلنا هو este fue la muerte. Esto ya no se lo Pero bueno, le fue a Yo no te salí, te salí. Te salí, yo iba a la mano, su puta, en que no. Te salí, te salí. Te salí, te salí. Te salí, te salí. لا فالسجن ذكر كلمة السؤال كلمة نعم كلمة السنة السلام

tamassakta bihi سميت الرسول فقد هداه الله ويتعني في بدايتي وأقلامي بمن زهزه اليمنى كما زهزه الشيطان والجهل الخمر وهذه تسكن السبل نوع ويفرد عن بلاك الجميع ويتفوق تعمية ابن عليه الرمون من تنبتي من تنبتي من تنبتي هذه تعمية فاتصلوا في الخلق على بالذكر مع صلاة الفتح نقرأ بدو يتكلم يلا نقرأ أنني يقول لنا الحقيقة فقط تصور لكن ذكر الصلاة متفق من سيد ابن الله من سيد فنن ابن المسلم لكن فنن بقى كلمة فنن كم سنة Ik kom zo met mijn gedaan. بامتثال ما قد أمر به متنا في مصدر léegi dañ dëkk mooy digal na mu sax ci li yàlla digal di woy ci waat di doo sabab di tere ci biir xasida googu mu si yéen nit ki digal dénkaane fi teg ay tegin nga xam ne yàlla ak ay tegin si diggante nit ñi ay tegin nga xam ne mooy ginnaaw boo ko dundee bàyyi ay tere la digal lu la def la def la def la def ko mun la def nga mun waaye mun la mu wax ni ngay àndee mu koy mu nit la mooy war na ci ñenn ñi ñenn ñi nga àndee ci yërmaa war na si ni nga àndee mu wax nga xam ne ñu nekk ci yàlla dëkk di bàyyi rek ñu tere war na war a ndax màggal yi ñu ngay ànde ngay ànde li nga xam ne ñëpp la mooy ci ñu semaine yi ñaan su borom ci ci ci lu benn ko bu ko ko nekk ci yéss mooy rek ñu ci nit ñëpp ak ci jëfe sunna su ko defee ci alquran da ngeen ci fekk saagatu ila na ko ci xam da ni saagatu waaye dikkati ko nag sëñ bi dafa wax bu doon xale bi ñuy jëkkante ñoom ci xet ñuy jëkkante waaye ñuy sàggan ñuy jëkkante ci ci ci ci ci tas yi kese kese kese kese mel ni kon jëkkante tamit xam-xam jëkkante jafe xam-xam jëkkante ak yéen 대책에 대한 의견에서 그래서 제가 열분잖아요. 이제 같은 거 말하기는 좀 나도 좀 이제 안 되겠다. 정신을 말하기는 그냥 그렇게 좀 말하기는 오히려 봐야 되는 거 이런 말이 그런 그런 줄 알지 그래서 와 이거 어떻게 지좀 이라든지

ñu ne ko faal ñaari ñu ci dolli ko mooy ñan mu ne juróomi xam ngeen ko ñaari des mooy ju ak joxe ñu ne ko faal doon ko firndeel lu jëm mu ak joxe mooy yoon bi loolu waaye dana wax lii tax a doon mu mooy jébbalu ak mu ko joxe loo doon doon xaritu seen nit boo dee doomi seen nit yi soo bëggee sa murit rafet da ngay ak murit mooy garab bu ñu jëmbat waaye joxe mooy ndox mu koy suuxat kon gaa ñi joxe mooy yëf yi te Sëriñ Tuubaa mu mës a toog teg nga ndabal ngërëm ci penc bi sëriñ bi su daa wax ne nitu yàlla bu nekkee ci àdduna ndabal yàlla lu ñu taaj ci penc la yàlla ne sama ndaba ngoog lépp lu waaye bëgg bu ak si man ko ci ndab loolu yi Serigne Bassirou nee na kuy am loo def def ca loo am def ca ba xëy ñu ne la ndax la na ci borom nee na waroo def lu sant ndax la nga ci defal yóbbu nañ ko ci sa borom. ki war a jooy kay mooy ki doon waajaka ten defal di waajaka ten defal bañ na ndax la dellu na te ci dara ku fi mos a toogal sëñ Tuubaa nag teg nga sa ndabal gërëm Cheikh Amadou Moustapha daal toog rek teg liggéeyu raay bi teg fondement jumaa ji suñu bàyyi baax yow. def ci liñ mën a lu lepp yëpp yóbbal ngërëmal sëñ ci wax serigne Fall ñu na dem ci ji ne mu ma kenn waxati dara liggéey li borom barab bi rek murid di ak mom ba mu ne sëñ Tuubaa say jaabee ko waye Cheikh bi bu ñëwee xol xol xam ne sëñ touba touba ko gëna ñor moy ak bëgg kenn bëgg ci àdduna bu ñu mën a waral sëñ Tuubaa ba te touba li ko gënal moy neegu yalla bi cheikh Ablaye ne sama yitté weesu na dina leneen bala maa def dara dama ko yokkal njëriñ yàlla ku ne gis na Serigne Sall lu mu yàqale liggéeyu Serigne Touba ba delloo si waat xel ko kenn ku ne nga xam Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Lamine gis ngeen li mu liggéeyal ko muy capital boo xam ne yéesu benn capital ci kaw suuf waaye gis ngeen Cheikh Seydil Moukhtar bi mu ñëwee xool xool jumaa xam ne mu ne si ñàkk a def dara mu ne ñu ñaari soororo bokk defal juma yi ndam sëñ Tuubaa feete Dakar di ndam loo xam ne ku bañ a nangu ndax ku gis nañ la ne waaye suñu jàmbar ji daa wax ne ñëw kenn ci sëñ Tuubaa wet bu ñuy jaar sëñ Tuubaa rek jaar naa ko ba xam indil ñu loo xam ne nag bu ñuy seet dëgg dëgg yittee sëñ Tuubaa mooy loolu mooy xam-xam bu sell te bi ko jëfe mu naal daalee sëñ bi nga xam ne ci naali sëñ Tuubaa yi la am sa neen bu ñu amati yitte bu ñu amati bëgg bu ñu taxawati suñu yitte mooy lu am jox sëñ Tuubaa rek ba keroog sëñ Tuubaa naan liggéey bi egg nee na def ngeen ci yitte ju mat def ci pastéef waaye nee na loolu li muy rëy rëy nañ ko jàppee ab téeñ ci ab téeñ moom la muy yenoo gën a rëy ëpp ko jafe daa bëgg ren ji ñun ahlu xasida ñu waaj waajaay boo xam ne buñ toogee ci kanamu Cheikh Amadou Muntaxa dana xam ne xam nañ ne Sëriñ Tuubaa ñun la sedd xasida yi te loolu mënoon a gaañ mënoon na ndax bokk ci teraanga yi suñu borom terale bi ci xasida yi mooy suñu borom du koo defal xiiral boo xam du dëkk nga xam ne bu nit wax weer laa sori Sëriñ Tuubaa nee na ma sama weer ma sori sama maam sama jant du soxla waaw xéwal day ñëw ci juróom-benn fi la kon nag suñu waxee ne ahlu xasida dañoo wax ne daje addiya jox ko fi nekkal Serigne Touba loolu war naa yomb Serigne bi na ñu ngi koy boppam di ko soññi képp koo xam ne yaa ngi yëg dara lu si digg ak Serigne Touba ci loolu la defee ci yi dafa bëgg nag nañ ko defee woon ñu defe ko noonu kenn ku ne ci mbooloo yi am nga jëwriñ am nga foo daan jaarale sa liggéey. bu ñuy liggéey sëñ Tuubaa mu jëm si ci moom kenn ko na dellu foofu lay firndeel ne la nga jaaroon si jëwriñ ñëw na bataaxel dana jóge ci sëriñ Amsatu Mbàkke dellu si jëwriñ ñëw ci yow di tontu lu wér lu wane ne la nga joxe woon ñëw na ku gisul sa tontu nag wax ko sa jëwriñ ku ñëw ba fi moom jox ko itam mu jox la sa tontu ci saa si waaye daal dañoo bëgg ñu def ci yitte def ci feste boo xam ne balaa sëñ Muntaxa ne suba la par ñu takk ndax serafal def na ndigal bu la fekkee tëdd jógal taxaw jógal ta jógal toog bu la fekkee taxaw toog jógal taxaw nee na bu xawee sori sa dox ci ay jéego bi sax nga xam ne tàmbali waaye ndigal kenn kenn du ko faraama kon nag damaa bëgg fii ci jataay bi ñu laal mbalaan mbaar bi ci soow di mbaarum sax laat ñu laal fa mbalaan mbaar bi ci tomb di mbaarum saxna sa sëriñ sàmm ñu laal fa mbalaan fii jàngkati yi ne woon ñu lalal leen mbalaan ñoom jàngkati xasida yi soxna yi ñu lalal leen balaa fenn fu ci ne ku wóor ne fa ñu génn adde yi sëñ Tuubaa dajale ko fii soog a dem waa ji bismillah kenn ku ne na génn adde li sëriñ bi wax nañ ko def sëriñ am sot nee na jëfewut ndigal waaye sañ naa jëfe ndigal di soññe ci képp ko fi doogal seex moom ko soog tegal sëñ Tuubaa ndigal loo jëfe dina ko jëfe insha allahu ànd koog ñun ñu di ko jëfe kon nañ ndigal li sëñ mën da xaaj bi jig lii le na ci taxaw ñu tàmmali ko tey jii ba mu ñettee Porokhane ñu mën a joxe lu takku la ci murid yëpp taxaw buñ fi jógee na kenn ku nekk jaayante 37 millions jaayante woon daaw kenn mën a joxe ko. sëriñ bi nee nañ dal ndax lii bu bu joxe bi yàq waxtaan wi nañ dal nañ dal nañ ko joxe naan. ñi ñëw ak ñi bëgg a ñëw. Cheikh Bamba dal dene ko yaa mat xaali sax lii dama laa tijaanta xaali bisub keroog may na ko may yu xam ne kàngame daawuñu ko ko may bañ fay ne keroog la seen maa booy ànd ak seen ya dañëw di tuuba ci demel yaag téen ya ak rab yaak ngàllo ya ak giwél ya ak maaba yaak wuudi ya ak bisir ya boobee la ñu rey demel sàmba law be bisub àllarba tiwaawoon la ñu ko ba boobee la demel sàmba yaaya dem dar